xale yi ñàkk liggéeyu xale yi mu taxaw ci taxawaay bu wér njàngum xale yi mu taxaw ci taxawaay bu wér magistrat yi justice bi ci taxawaay koom-koomu réew mi alalu réew mi yi nga xam ni yàlla jagleel na ko réew mi notamment petrole bi ak gaz bi mu taxaw ci taxawaay bu wér yooyu sujet la jàpp ni moo war a nekk sujet de préoccupation wante daje entre politiciens waxtaan ci biir néeg tàppante pour bëgg a ànd bëgg jubo te njariñu réew mi feeñu ci loolu na ma ko waxee woon démb rek laa koy waxee tey kenn du ci gis Idrissa Seck li nga xam ne lii moo ñu ñor daal mooy lépp luy jëmale Sénégal kanam moom la ñuy wax moom la ñuy xalaat moom la ñuy dox guddi ak bëccëg di liggéey nag pour senegal bañ a bokk ci ndaare yi comme ni ko njiitu réew mi di defee loolu dadul suñu philosophie suñu philosophie mooy liggéey pour Sénégal bokk ci ñi jiitu ñaari philosophie la yu bokkul donc waaw loolu waxtaanee guñu ko ñoo ngi ci liggéey di ci diisoo incha allah fu ñu ci toll rek dinañu leen ko yëgal incha allah jërëjëf. tey je pense que lu lu am solo la xam ngeen chaque année ñu fii ak délégation bu. bu bu am solo aussi président de la république président Abdoulaye Wade moo mënu yónni fii euh, ak waa ñoom ñu def délégation PDS bu nu ñëwee aussi waxtaan bu am bu am solo la waxtaan si mbirum jàmm si Sénégal euh, ak jàmm lu mu war a demee wax na sax euh, ay pétrole ak ay gaz wax na ay suuf lu mu war a demee si si réew mi mais indépendamment de tout ñun duñu yaakaar ni daal lu mu wax mooy lu doon wax toujours mooy si démocratie bu mel ne Sénégal il faut que vraiment euh, opposition mën a opposé wu euh, euh, pouvoir bi mën a mën a kii nguuram ah doxal nguuram si jàmm am loolu moo am solo kon ku nekk di nga am sa droit il faut que droit yooyu ñun ñu fexe bay droit yooyu ku nekk mën ko respecté. ci contexte bi mën naa nekk loolu est-ce que. ah man je pense que appel loolu la noonu laa ko noonu laa ko noonu laa ko gisee je pense que loolu mën a loolu rek la mën a nekk. te incha allah ñoo ngi xaar nag euh, nguur gi aussi lu muy wax ak yeneen parti lu ñuy wax mais euh, waxtaan euh, kenn ñun du mas wax ni waxtaan am na am na solo trop mais nag pouvoir bi ak ak. am na leen ko seqal daal. ah ñoo ñu bëri ñoo ko sax nu du noonu rek noonu rek dafay simple. waa di sant yàlla suñu borom di di seen salaam di ñaanal sama ñaari waajur Euh, di am mbégte tey nu ma ñëwee ci ànd ak délégation bu rëy bu ñaare ziare famille Serigne Hadj Malick Sy Serigne Babacar xam ne suñu wàttila bu mag la njabootam nekk fii di ci tarixa bi rawatina suñu kilifa suñu wasila Serigne Cheikh Tidiane Sy te rakam di Abdou Aziz Sy Al Amine fi nekk porte parole ak bopp njabootu Serigne Maam Malick eh, Malick Sy ñëpp ñoo xam ne nekk nañ fii di taxawal taxawal fi tarixa bi ñoom ñëpp ñëw nañ leen ziare si leen sàkku ñaan si ñoom ku ñaanal Sénégal eh, jàmm bi ci am bu gën a law jafe-jafe yi fi am ñu mën fi jógee waa Dakar yu amul ndox yàlla may leen ndox parce loolu aussi jafe-jafe la et jafe-jafe politique yu am si biir Sénégal si yàlla saafara ko eh, di ñaan kilifa yooyu suñu wasile yooyu te nekkoon ay référence ci Sénégal ak ci monde bi yëpp euh, seen ñaan yu fi baaxoon yàlla gën ko lawal en tout cas gën ko dugalaat ci xol yi pour que ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel ay criminalité boo xam ne mu fi am ay comportement yoo xam ne peut-être Euh, mosuñu koon xam loolu yëpp yàlla jëlee ko fi donc di ñaan yàlla rek lépp loo xam ne ñaan nañ ko yàlla defal président ñu ngi lay tudd ci koy ci man damay faral di lépp loo xam ne damay faral di def dama koy def si euh, loo xam ne si lu wóor la c'est vrai que am nañu ñoo xam ne bëgg nañu def coalition mais lu wóor ci wóor ci man mënuma engagé sama parti si benn coalition bi te waxtaanu boo ak sama waa parti bu dul wër si wër suñu parti fu mu ne nii benn coalition bu tudd Manko Wàkku Sénégal la bokk ci coalition boobu ñëpp xam nañu du coalition électorale donc ñu amoon xalaat ni que il faut que pour balaa ñuy dem si élection ñu tëral benn coalition te loolu si ay waxtaan rek dañu nekk jëlaguñu benn décision euh, donc jëlaguñu waxtaan ñu sérieusement ak kenn si ñoo xam ne ñoo nekk si nangu politique bi mais si principe bi ànd nañ si mais je pense que man luñ ci lu ñu war a dugg rek dañ si war a dugg sur des bases solides Euh, ñu bañ a yàkkamti si mbir mi ñu waxtaan suñu biir te ñu war a ànd ñu mën a ànd je que loolu moo gën a am solo koy ku ñu yàkkamti di wax ni am nañu ay coalition si nekk sa wet keroog ci bi euh, moom bokk na ci ñuy annonce loolu mais dafa dàq déjà ñi nga xam ñoo jàppale woon président de la république second tour bi rawatina ñuy jóge ci gouvernement bi jamono ji nekk biir manko waaw dama man xam ne moo euh, loolu peut-être que waxtaanee ko peut-être que moom xalaatam la joxe mais ah, ba bu ñu bëggee am coalition boo xam ne coalition bu am solo la c'est vrai que moo ñëpp mënuñu àndandoo ci benn coalition te wax naa leen que man ko wattu Sénégal suñu euh, amee mexicaine peut-être que ñu ñëpp du ñu mën a ànd mais ñu su bëree dinañ mën a ànd ñu bokk gis-gis dinañ mën a ànd peut-être que si fànn yooyu la ko euh, Mamour Cissé waxee mais man duñu de façon générale ñun suñu parti on est des centristes donc centrisme mooy équilibre mooy juste milieu mooy modération et puis ouverture donc képp koo xam ne yaakaar nañu ko bu ñu àndee ak yow Euh, di ñu di ñu indil doole que suñu coalition bi na am doole parce que suñu euh, suñu ambition mooy am groupe parlementaire boo képp koo xam ne bon euh, bu ñu defee analyse yi ñun suñu biir képp koo xam ne yaakaar nañ ni que war nañ mën a am am boobu mi ne ànd mais pour l'instant yàggaguñ si loolu on est juste des intentions vraiment coalition bi taxawalaguñ ko ba ba léegi mu ma leen mu may wax